asalaamaaleykum euh, mbokku internautes euh, yi nga xamante ni saa su nekk ñu ngi suivre fii nii euh, ci Seneweb TV dal leen ak jàmm si plateau spécial bi nga xamante ne tey da nga ko jagleel comité d'organisation wu Miss Sénégal ku xam Sénégal xam importance su culture di nga mën a xam ne tamit ni événement boobu noonu di Miss Sénégal dafa bokk ci li nga gën a am importance si agenda culturel sénégalais bokk na tamit ci li nga xamante ne day tax ñu daal di ràññee Sénégal identité la bokk maanaam ba tax na tey jii nii dañ fi dalal ay gan euh, ki ma njëkk a commencé moom moo nekkee sama droite tey nag damay def honneur aux hommes muy monsieur Camara ñu ngi lay nuyu. merci beaucoup Maria maa ngi leen di nuyu di am mbégte bu baax ci seen plateau bu yanj bi ngeen ñu dalal pour ñu mën a wax ci taar ak taarixu Sénégal di jëmale ko ci Miss Sénégal. d'accord merci beaucoup keneen kii si topp di Amina Badiane moom nag moo jiite comité d'organisation bi euh, te yaakaar naa ni depuis quelques années moo ngi def liggéey boo xamante ne euh, kenn mënu ko naataat ndax bëri gi mu bëri Amina ñu ngi lay nuyu. fay naa leen Maria di leen remercier bu baax ci invitation bi ñu dal ak jàmm merci beaucoup. merci beaucoup Amina keneen kii di Chantal moom moo nekkoon euh, Miss euh, Sénégal 1985 ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu maa ngi mbokk yi maa ngi leen nuyu leen remercier di leen gërëm. voilà merci beaucoup. elle accompagne euh, matière de communication de publicité et c'est une influenceuse bonjour et bienvenue coach en Bonjour, merci à CNeWeb pour, euh, pour votre accueil. C'est une joie de participer à Miss Sénégal. Vraiment, c'est honneur. Mhm. merci beaucoup donc euh, ki nga xamante ne moom laa njëkk posé question bi mu ngi jëm ci euh, Amina Badiane Amina Badiane mi Sénégal ren lay am 60 ans est-ce que mën nga ñu wax yan nouveauté ngeen ñu indil si 2021 bi. waaw Maria euh, maa ngi lay jaajëfal ci question bi euh, ren ku ne xam na ni euh, année bu exceptionnel la ñu am ndax Covid bi donc yombul fenn mais dañu ni il faut ñu am un plan B il faut ñu organiser parce que nag ren comme Miss Sénégal day fêter les 60 ans. moo waral ñu euh, organiser Miss Sénégal en format digital ren dañu liggéey ci côté digital cela veut dire que euh, dañu retenir trois filles dans chaque région léegi trois filles yooyu moom la ñu convoqué ci benn plateau à la 2 yi foofu la ñu def tour def tournage yi def ko ay capsule ba capsules yi quatorze capsules la ñu am ren donc bi ñu euh, convoqué trois filles yi léegi nag après ñu teg benn plateforme digitale digital boo xamante ne nii sénégalais bu nekk nag dina mën a tànnal boppam Miss préférée donc moo tax euh, sénégalais yi ñu ngi doon voté ci Miss suivi du numéro au vingt cent loolu dina permettre euh, jury bi mën a voté à 50 pour cent public bi aussi voté à 50 cent parce que nag public bi aussi dañ ci am wàll ndax bu ñu nee Miss Sénégal toujours ma wax ko Sénégal yëpp a ko moom. Euh, bu loolu weesoo am nañ aussi ay thèmes yu ñu teg pour que waxtaane ko ak la jeunesse parce que dafa am solo ñun xam nga suñu cible bi jeunesse bi la ñu gën a ciblé donc te jeunesse bi am na yenn problématique yoo xamante ne ni ñun ñoo mën a porter message bi au niveau de la population lu ci mel ni comme immigration irrégulière ak l'entrepreneuriat féminin euh, aussi yooyu ak la promotion de l'emploi des jeunes euh, trois thèmes yooyu euh, moom la ñu gën a mettre en avant aussi sans oublier aussi euh, la promotion de la destination touristique parce que mm-hmm. kenn mënul wax Miss Sénégal te mënul wax promotion touristique ak promotion culturelle donc loolu ci la ñuy gën a liggéey ren donc dina dinañu euh, recevoir les quatorze finalistes samedi ce samedi 19 à Diamniadio euh, fi nga xamante ni foofu la cité Sénégindia yi nekk foofu lañ leen di recevoir quatorze yi dinañu présenté wu ñi nga xamante ni ñoom lañu ñu dina ñu aussi dugg ci villa bi dinañ préparer benn tapis rouge boo xamante ni nii stylistes yi dinañ leen ñawal dinañu sol yu rafet comme ça aussi ñu wane aussi seen i talent parce que nag dëkk bi dafa am ay talent am na ay stylistes yoo xamante ni par exemple ñu ngi ñaw ñi ngi liggéey liggéey bu jaar yoon te kenn xamu leen et ça fait l'occasion ñu xool tamit seen i liggéey valoriser aussi li ñuy def ci millier art ak culture donc ci biir villa boobu noonu dinañ fa def 10 jours 10 jours yi dinañ am activité yu bari chaque jour dina am programme dinañ am benn journal ba yéen waa Seneweb sax aussi di ngeen fa def benn plateau. ak mhm. Ameth comme ça léegi euh, ci biir activités yi dina am concours culinaire dinañ xale yi dinañ togg parce que nag ñun région bu ci nekk da nga am sa plat euh, euh, régional. parce que bu ñu nee joolaayu ñu ne ñànkatang sëpp kànja ñu ne Thiès ñu ne ñu ne cere donc noonu lañ koy defee xale bu ci nekk di nga togg sa plat régional. maanaam boobu am nañ ay innovation yu bëri daal am nañ ay innovation yu dul jeex. Mhm. dina am aussi dinañ créer ay plateau aussi thématique dinañ def aussi plateau partenaire dinañ def ay sorti dinañ dem ci milieu culturel yi dinañ visiter des sites culturels ak des sites touristiques donc ren daal nouveauté boobu la ñu indi. Mhm. mais bëgg nañu aussi organiser finale physique. parce que nag mënuñu wax Miss Sénégal rek. te duñu défilé te duñu défilé. Mm. duñu ñu xool leen te ñun dañu am ay gan yoo xamante ni dañuy jóge partout bu ñuy organiser finale nationale bi donc loolu moo waral ñu ne nañu bàyyi ba mois d' le 13 août la ñu jàpp def finale bi ba nga xamante ni nii voyage dina yomb euh, Covid dina fi passé ñu ngi koy ñaan yàlla quand même. Mm-hmm. ba nga xamante nit ñi dinañ mën a ñëw suñu partenaires européens yëpp dinañ mën a ñëw pour teew pour euh, finale bu mag bi. voilà merci beaucoup balaa maa ñëwaat sax euh, sur le fait la moo tax ngeen euh, choisir euh, ren def ko ci biir villa damay dem si kii di monsieur Camara est-ce que mën nga ñu gën a lan moo nekk sa rôle ci comité d'organisation bi. voilà merci donc euh, mon Miss Sénégal. Mm -hmm. euh, Miss Sénégal c'est une organisation qui dépasse carrément le niveau national donc au niveau international Miss Sénégal aujourd'hui Euh, à penser à la diaspora sénégalaise donc fépp foo xam ne doomu Sénégal dafa nekk ci àdduna bi dañ fay dem di fa organiser Miss Sénégal Italie Miss Sénégal Espagne Miss Sénégal Angleterre muy volet international bi au niveau local Miss Sénégal c'est en quelque sorte une institution c'est mm. c'est une euh, grosse affaire il faut impérativement que tout soit calé et bien organisé donc euh, bu ñu tàmbalee ñun mën na ne 365 sur 365 la ñuy gérer mm-hmm. déjà préparer ren c'était pas trop évident mm, ak Covid bi euh, il fallait vraiment de l'ingéniosité pour mën a calculer comment faire pour maintenir Miss Sénégal euh, ci euh, forme digitale bi comme ni ko la présidente waxee léegi ba nga xamante ne si nit ñi danañ mën di xam ni Miss Sénégal mu ngi continuer am donc toutes ces activités la doivent être coordonnées mais programmées aussi donc euh, léeg-léeg nga am problème parce que bon voilà les restrictions sont là mais da nga jéem a trouver solution donc c'est ce que nin daan def des présentiels physiques nit ñi ñëw ñu def une soirée dans chaque région ren on a préféré demandé au comité de région ñoom ñu def benn genre euh, casting mm-hmm. mais boo xamante ne si ce sera à distance pour respecter les mesures qui étaient là sur place mm-hmm. donc ñoom ñoo doon def fishing boobu dem seeti ay xale yu dëkk seen dëkk bon demandé leen aussi ak proposition ñu ñëw mën a participer pour ñuy def participation bi aussi c' des vidéos mm-hmm. qu'ils vont qu'elles vont envoyer comité bi tànn ci après éliminer jusqu'à retenir trois qui vont représenter la région donc ces trois par région nous a amené à avoir 42 filles sénégalaises de toutes les régions du Sénégal ñooñu ñëw conquérir ba mën cee génnee présentement kenn ku ci nekk pour ta région la Miss régionale alors maintenant ce sont ces Miss régionales venir pour discuter la couronne nationale. Couronne nationale Rennes, c'est en deux étapes. Mmh. D'abord, la première manche va se tenir du 19 au 29. Le 19, parce que dans les tapis rouge, de Miss Sénégal, c'est glamour, c'est tout tout ce qui Voilà quoi. Donc, pour vendre un peu la aussi avec euh, les créateurs locaux et bon suñ jógee ci tapis rouge bi les filles vont entrer comme l'a dit Amina dans mmh. la villa pour une durée de dix jours mais toujours avec l'esprit de euh, concurrence donc chaque région dana wane ses atouts culturels ses atouts en tout cas qui existent au niveau de la région comme ça ñu juger leen donc euh, ci wàllu gastronomie ci wàllu beauté ci tenue d'ailleurs d'où la présence de notre très cher euh, Naïma mm qui est coach à Paris très connu pour beaucoup de choses qu'elle est en train de faire donc mm comme nous l'avons au Sénégal aussi faire voir et donner la possibilité aux autres de découvrir ce qui se fait ailleurs mhm. bon donc euh, là suñu jógee ci villa bi on aura la possibilité de donner aux filles encore un mois pour aller se préparer pour la phase finale qui se tiendra Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, avant de poser la question à Chantal, je vais en poser à Neymar. Euh, si je ne me trompe pas, c'est ça le prénom. Oui, c'est bien ça. <laughs> Effectivement. Alors, euh, j'aimerais savoir euh, comment comptez-vous accompagner les filles qui ont été sélectionnées euh, pour le concours de Miss Sénégal Tout simplement euh, en apportant ma vision, Donc euh, euh nous, on, a la chance d'avoir cette double culture-là, d'avoir cet apport aussi euh, euh de, de, la France et euh, cette, euh, cette base qu'on a aussi du Sénégal. Donc c'est surtout de communiquer avec ces filles-là et leur montrer que la beauté, c'est pas juste l'extérieur, c'est aussi l'intérieur, et de pouvoir cultiver cette beauté-là, de pouvoir mmh. la maîtriser et de pouvoir l'entretenir. Parce que quand elles sont livrées à elles-mêmes, elles ont besoin de s'entretenir, Et c'est des personnes qui sont, euh, c'est des personnes comme nous, mmh. qui, mhm. sont, euh, qui ont été projetées dans un concours de beauté et qui ne savent pas forcément euh, euh comment, euh, on va dire, euh, comment manier ce concours en fait. Donc on est, on est plus là pour les, les, les aiguiller, on va leur donner des cours d'automaquillage, on va euh, leur apprendre une, la façon de, de, de, se tenir en tant que Miss, mm -hmm. bien sûr. Euh, on va leur donner des clés pour euh, apprendre à apparaître au quotidien. Mm -hmm. Et aussi, c'est beaucoup de développement personnel. D'accord. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Elle a parlé de beauté. Damay euh, dem ci Amina Chantal. Je ne vous ai pas oublié. <laughs> J'ai besoin de pour un point bien précis. Alors, euh, elle a parlé de quelque chose de très important, c'est-à-dire euh, euh la beauté. Euh, que mu nekk interne wala mu nekk euh, externe euh, daaw dañu gis rek bu ñuy choisir Miss Sénégal bëri woon na polémique parce que certains la trouvaient belle d'autres ce n'était pas le cas lan nga gisee woon situation boobu noonu ak yéen ngeen ko dundee woon. compétition la ñu wax bu ñu nee compétition mooy jongante. Mhm. donc ku nekk day bëgg a gagner ku gagner aussi sa moroom du kontaan dina ni man maa waroon gagner. ba mhm. pare aussi nit ku nekk ak sa goût aussi. kii mën na rafet ci yéen mën na bañ a rafet ci keneen ba pare ñun dañu am yeneen critères aussi derrière xam nga xooluñu rek rafetaay mais aussi dañuy xool comportement dañuy xool aussi yàlla a le teint naturel euh, dañuy tere piercing tatou il faut nga am euh, niveau intellectuel parce que mise aussi il faut mu mën a affronter aussi euh, public il faut mu mën a wax parce que nag dañuy ànd ak moom partout dafa war a représenter Sénégal au niveau de l'international dafa war a dem Miss Monde ñi ngi xool ak Chantal di lijjanti Miss Univers mhm. donc bu loolu sottee aussi dafa war a dem Univers donc dafa am série de critères yoo xam ni derrière yoo xamante ni nii Sénégalais yi peut-être dese nañ koo xam mhm. nekkul ni rek nanga nga xees euh, wala nga jongoma non mais dañuy xool autre chose donc loolu moo waral des fois à chaque fois aussi bu ñu choisir euh, ñoom dañuy xool rek aspect physique bi mais du ñu xool aussi ce qui est derrière aussi. Mm-hmm. loolu am na solo. waaw mhm. ah, voilà loolu moom moo waral polémique yi. Euh, mais gis na gëj nañ gis tamit euh, Sénégal ci concours de beauté internationaux yi mu daal di jël ndam li te dañ daan faral di gis sa Sénégal que ce soit Miss CEDEAO wala ailleurs Miss sénégalaise yi nga xamante ne dañu daan remporte dañu daan représenté foofu noonu bu ñu gañewul concours bi si boppam du ñu génn ci trois premières yi nga xamante ne euh, ñoom ñooy gàddu ndam li lan moo mën a expliquer tey ji situation boobu noonu. waaw loolu euh, daaw par exemple kenn moo gagné Miss Monde parce que Sénégal teewoon na ci cent parmi cent vingt cinq pays waaw loolu li ma ci xam mooy ñu gën a préparé waat suñu ay miis gën leen a formé waat euh, gën leen a parce que tamit anglais dafa am solo. Mhm. ndax miss bi représenté Sénégal il faut mu wax anglais. ndax ñoom ñooñu di ko organiser ay pays anglophone lañu malgré ñi fay teew am na ñu dul wax anglais am na ñu ñuy wax anglais mais. loolu dafa am solo parce que ñoom loolu lañ dégg te aussi boo déggee anglais mën nga dem fu nekk donc anglais c'est la langue internationale quoi parler partout donc euh, loolu am na aussi ñuy ñaan aussi autorités yi ñu gën ñu jàppale mhm. parce que Miss Monde du affaire bu ndaw Miss Monde ça demande des moyens licence bi dafa coûteux dañ koy jënd donc préparatif yi aussi dafa luur parce que di di dina am ay robb yu muy yóbbu Euh, donc billet d'avion yi ñi koy accompagner xam nga ak tout ce qui est derrière hôtel yi et tout donc loolu budget c'est des millions donc loolu aussi bu ñu ci état jàppalewul ñun naka la ñuy représenter le Sénégal dignement mhm. donc la c'est très important donc di faire appel au ministère ministère de la culture ak ministère du tourisme ñoom nga xamante ni ñoom ñooy suñu ministère de tutelle yi mhm. ñu gën ñu jàppale parce que c'est la vente de la destination Sénégal mhm. waaw donc dafa am solo daal. Mhm. merci beaucoup Amina damay dem euh, si Chantal comme que ñoo ngi ci wàllum euh, concours euh, de beauté yi moom wax na ci Miss Monde mais fu mu toll nii Sénégal mënatul participer si Miss Univers depuis yow bañ la falee Miss est-ce que mun nga ñu expliquer waat lan moo waral woon loolu noonu. après man euh, j'ai beaucoup de recul parce que li ma dellu si Miss Univers dama amoon souci ak ah, organisatrice bi bon. yéen mënu leen ko xam parce que dafa yàgg. Mhm. seen génération yi je crois que bi mu amee yow nekk junng <laughs> <laughs> voilà bref sama situation dafa c'était tellement compliqué que à la fin dama ne bu fekkee ne du sama destin ma bàyyi ko parce que je bi ma dellu suyee fii dama ñëw ma ma expliquer en base Gomis paix à son âme sama situation parce que organisatrice bi daal de mon départ à mon arrivée gisuma ko et li ma doon yaakaar yëpp am Miss Univers gisuma ko donc dama débrouiller toute seule ça veut pas dire que di si elle était là dinaa gagné mais dama au moins ñu accompagner jox ma chance voilà euh, accompagnement amuma ko mhm. loolu moo tax depuis bi ma gisee Alberta Diatta Miss Monde sama xol dafa bég mhm. ma kontaan ma essayé contacter Amina franchement honnêtement bu ma gisee lii dama ne ça c'est quelque chose mhm. voilà mm -hmm. moo tax ma ñëw ma ma kole Collé Badiane ma posé ko question ma ne ko waa lu xew ba am gisuñu Miss Sénégal euh, Miss Univers parce que man en dehors même bi ma génnee ci organisation bi dama doon suivre quand même élection bi am naa ay xarit Miss France Miss Zaïre wu génn euh, Miss Afrique à l'époque sama roommate mooy ki nekkoon ci sama chambre di partager hmm. dañu garder contact ma continuer di suivre euh, élection Miss Univers léegi sama déception bi mooy kenn du gis Miss Sénégal moo tax mm. bu ma gisee Alberta Miss Monde ma contacté madame Collé Badiane ma félicité ko mm-hmm. parce que gis naa ni mu ko accompagné mm-hmm. ni mu ko entouré c'était vraiment une fierté mm-hmm. voilà voilà moo tax léegi ma ñëw essayer jàppale si kon daal fu mu toll nii fas yéene nga jàppale miss yi nga xamante ne ñoom ñoo war a nekk ci bi ngir ñu mën a mm-hmm. euh, ne serait-ce que sax euh, sur le plan national comment se tenir comment parler ak nan la ñu war a mën a affronter le monde. après loolu. c'est pas compli compliqué je pense que Aminata euh, Badiane tamit par rapport à son parcours am na expérience bu bëri mhm. mais bon man am naa expérience récente parce que sama doom yi def nañu tamit miss fu ma nekkoon gis naa pas mal de choses mm -hmm. mais honnêtement dama ñëw pour soutenir ko parce que li ma gis dafa rafet moo tax man il faut ma ñëw contacter ko maa ngi koy remercier pour invitation bi parce que dina ma permettre comme ça ma joxe effectivement sama ressenti si li ma man moom vécu parce que. daf la daf la touché woon. daf ma touché woon waaw. voilà euh, Amina tey jii nii lan ngeen fas yéene def euh, pour euh, daal di def Sénégal daal di mën a participer waat si Miss Univers parce que concours boo xamante ne dafa am dimension bu mel noonu defe naa dëkk yëpp war nañ ci mën a bokk. waaw effectivement damay remercier Chantal aussi parce mhm. que nag dafa def déplacement bu rëy moom Paris la dëkk mi ngi dëkk France pardon mhm. Alsace Alsace foofu la jógee donc ñëw uniquement pour jàppale ñu accompagner ñu ndax liggéey bu rafet bi mu ñu fekk ñu koy def. Mhm. te moom aussi euh, euh, mu nekk icône aussi ndax moom mooy Miss bi dem représenté Sénégal à Miss Univers loolu du ndaw. Mhm. donc vraiment ñu ngi koy féliciter di ko remercier bu baax di am mbégte ci teewaay bi. Mhm. donc euh, pour Miss Univers. man bi may dem Miss Monde yombul woon. parce que Miss Monde aussi c'était la même chose ah. Sénégal toogoon na lu yàgg aussi demul may xeex di xeex euh, à travers mais relation ak contact fexe ba delloowaat Sénégal Miss Monde. Mhm. loolu ñu awaat tànk yooyu bëgg ko defaat ak Miss Univers mais mhm. jombul peut-être ñoom ba ñu euh, participer à l'époque Miss Univers amoon na yenn problème yu ndaw yu fa mënoon am. moo waral ñu ñu écarter Sénégal parce que boo seetloo Sénégal dañ ko écarter. effectivement et le pourquoi ñu écarter ko man xaw ma ci woon dara mais moom indi na yenn éclaircissement yoo xamante ni nii vraiment tey xamal nañu euh, peut-être lan moo tax à peu près quoi. Mhm. peut-être amu ci euh, kii nekkul lu ko wóor à 100 pour cent mais ah, ñun loolu la quoi pour ñun parce que quand même Sénégal am na yeneen pays africains yu participer yoo xamante ni gënuñu Sénégal Afrique du Sud day participer euh, Nigéria et un partout donc Sénégal am nañ euh, capacité am nañ aussi potentialité boo xamante ne ni suñu fii dañu rafet war nañ mën a participer donc loolu aussi ñu ngi ci di ci liggéey maa ngi en contact en négociation ak comité Miss Univers te am nañ yaakaar ni balaa yàgg dinañ mën a reprendre suñu place à l'international. Euh, yàlla na sotti ak jàmm. Euh, monsieur Camara ñu daal di di ñëw ci événement samedi bi lan moo fas yéene xew ba fële ca jam ñaajo ak nan ngeen ko fas yéene defee. ben, beaucoup de lumière, beaucoup de son. Donc, euh, d'habitude, quand je parle de Miss Sénégal, moi, je suis ému par la beauté sénégalaise, mmh. d'autant plus qu'on nous vante d'être, en tout cas, d'avoir les plus belles. Euh, na Naïma, Amina et autres euh, que yow dañ koy dañ koy dañ koy dégager effectivement mhm. donc euh, comme ni ñu ko waxee samedi pour ñun ça doit être une entrée explosive donc dafa mhm. war a nekk tapis boo xamante ne si tapis rouge boo xam ne ci la ñuy njëkk a wane les miss régional bu ci nekk ñëw présenté wu avec mhm. défilé plus euh, robe euh, soirée ou en tout cas tout ce que la demande bu defee loolu ba pare avec euh, nos partenaires avec en tout cas tout ce qui est luxe y va que ça mhm. soit les donc pour mën a wan nit ñi que ni ren seeni miss ñëw nañ jongante la région bu nekk mën a supporter missam buñ défilé ba pare war na nañoo def du show donc nous avons des artistes invités yoo xamante ne si ñoo fay def euh, live pour mën a donner un peu de truc ensuite on a des invités de marque yoo xamante ne si ñoom ñooy ñëw euh, tous nos partenaires ñoom ñooy tànn seen i invités comme ça ñëw yanjël bés bi suñu xasee ba def interview yi ba pare nag les filles von entrer dans la villa et top c'est parti pour euh, une série de télé-réalité pour 10 jours ñoom rek ñoo fay nekk plus bien sûr la de la télé pour mën a def jongante yi moo xam ci beauté comme ni ñu ko waxee mais sous l'aide et le contrôle de des coachs moom comme vous avez dit elle a l'expérience elle a vécu parce que on parle toujours de l'international mm-hmm. l'international c'est c'est c'est du lourd rien que Miss Monde on a fait trois semaines de préparation à Londres mm-hmm. donc euh, ça imaginez tout ce qui s'ensuit et que su fekkee ni sa Miss dafa dem moom rek ça pose problème parce que mooy li ko daloon doo am ku la taxaw justement donc il faut impérativement un tampon derrière buy gérer mm-hmm. chaque minute dañuy laajte dara yow yaay daw jëndi indi ak euh, yeneen tout ce qui s'ensuit donc derrière c'est ce qu'on attendait de l'État du Sénégal cet appui au-delà de cet appui financier mais technique l'accompagnement pour que ñu sentir que ni on représente dignement le Sénégal. kon instant bi nii amagu leen accompagnement wu bon euh, il faut il faut s'en réjouir ah pour sant yàlla parce que boo ne mi Sénégal ñu ngi ñëw mais dimension ba mu war a toll tey l'équipe Sénégal euh, du Sénégal buy dem euh, si on vous dit par exemple que Alberta pour aller à Londres nous avions acheté les billets nous avions négocié euh, son visa mm-hmm. ça veut dire que c'est comme si elle ne portait pas les couleurs du Sénégal. Donc ça, ça devait pas être notre rôle, nous, en tant que comité, d'acheter et de courir derrière. Mm Techniquement, ñoom ñoo war a gérer loolu. et puis gunge ko ban sentir ne kii de représenter Sénégal et derrière les Sénégalais peuvent suivre et voilà joxe benn élan boo xamante ne si moom day confiante pour wane ne je représente et c'est lourd j'ai tout un pays derrière. Mhm. mais su sentirul loolu. bon déjà dem di njëkkante pour visa bi il faut que nga jógee dem dans un autre pays africain da lay sonal c'est des stress de plus yoo xam mënoon nañ ko éliminer donc tout ça c'est c'est une gestion mais l'expérience est là heureusement parce que ça nous a permis de découvrir que c'est extrêmement lourd comme on le pensait dépasser la ko quoi parce que aussi Miss Sénégal local tu peux tu peux jouer avec euh, les comités régionaux et autres mais aller dans un pays anglophone d'abord Euh, la barrière linguistique ensuite nga war faa def un mois boo xamante si yow ak say yeneen i moroom ñoo fa nekk ñoom bu ñu ñëwee ak yenn support yi rek da lay wàññi. waaw dëgg la bon ak yeneen yi ci yi ci nekk yëpp mais bon pour pas revenir sur samedi bu ñu paree rek on enchaîne avec euh, toutes ces séries donc euh, de jongante comme je dis ci biir villa bi ci biir villa Amina la moo tax ngeen choisir euh, villa ren. waaw pare bëgg ci def benn mini télé réalité. parce que ren euh, Covid moo ñu poussé. pour mhm. que ñu changer ñu def beneen indi lu bees. Mhm. waaw parce que loolu aussi dina permettre ñu gën a am temps gën a waxtaan gën a gën a wax ci suñu problème mu bi. parce que loolu euh, aussi wane aussi talent yi aussi parce que tant Miss Sénégal événement la boo xamante ni aussi day may chance. talent yi par exemple styliste yi ñu wane seeni liggéey wane ñi nga xamante ni ñoo nekk ci milieu beauté ñu wane seen i liggéey d'ailleurs damay occasionné di remercier Naïma aussi mi nga xamante ni dafa jóge ba fële ñëw ba France ñëw pour def coach beauté moom normalement euh, samedi moom xale yi ñaaw du fa am parce que ah. Naïma <laughs> Naïma dina xool seen maquillage ndax jaar na yoon seen habillement ndax jaar na yoon lépp ndax jaar na yoon donc ñu ngi koy remercier vraiment di am fierté bu mag ndax nag ku ñu xam la foofu ci France ñu ñëw pour jàppale ñu non ren villa bi moom vraiment dara du fa manqué ren dinañ am contenu riche donc ñu ngi leen di ñaan rek sénégalais yi suivre ñu ci 2STV Euh, ak euh, Seneweb ak fépp. <laughs> voilà waaw voilà donc euh, merci. merci beaucoup Amina yal nañ fa yegg ak jàmm xam naa Seneweb moom comme chaque année du tàyyi si di leen accompagner ci concours bii nii di Miss Sénégal ndax suñu yëf la nag kenn mënu ko weddi kon dama leen di yi ngeen tàggatoo bu dee amu leneen loo leen ci bëgg a yokk. <laughs> voilà. waa li may ñaan mooy. ñu bàyyi préjugé yi supporter suñu Miss yi. parce que avenir non seulement Miss bi mais du pays tout entier répercussion bi dafa am importance. Mhm. voilà ñu leen di supporter surtout critique négative yi ñuy faral di des ci Miss yi. bon après loolu mënul ñàkk parce que mhm. tout concours xam ngeen ko même partout ma man gis naa élection yeneen dëkk yi même les pays lati latino c'est pire que chez nous. parce mhm. que dañu gëm xeet. <laughs> voilà. mais ñu supporter quand même bàyyi préjugés yi ba tey c'est aléatoire ku nekk ak sa même Miss Univers pronostic yi parfois dafay déjouer du ñu xam kan mooy gagné ku nekk ak sa wërsëg na ngeen supporter l'essentiel mooy ki repre kii baa leen représenter seen dëkk Sénégal. Mhm. ngeen supporter ko voilà. voilà merci beaucoup Neyma votre dernier mot. ben, je, je, je, souhaite à remercier Amina ainsi que tout le comité de m'avoir euh, euh, donné euh, l'opportunité de participer à cette aventure, mhm. puisque je pense que euh, Miss Sénégal, les, les Miss Sénégal, c'est vraiment la vitrine du pays. le Sénégal est un pays touristique qui tend à être découvrir, qui n'est pas exploité, à sa juste valeur. Mhm. Et je pense que ce concours, avec tout ce qui se passe actuellement, tout le renouveau que a mis en, place, je pense euh, que ça prend une, une, meilleure visibilité sur le pays et pousser euh, vraiment à développer le tourisme et euh, à participer aussi à, à, euh, Miss Univers éventuellement. Voilà, bonne chance à vous. J'en profite encore pour remercier Madame Badiam, de encourager en espérant que cette fois-ci, mhm. franchement, ce sera top on n'en doute <laughs> pas il y a pas <laughs> ma bàyyi la nga tàggatoo. Euh, waaw Maria dama lay doon wax rek ne am na aussi benn nouvelle bu tombé euh, j'ai été nommée ambassadrice African Tourism Board. macha euh, semaine bi passée loolu beneen mission la bu ñu ma teg pour mieux vendre la destination Afrique. Mm-hmm. pas seulement Sénégal mais Afrique bi yëpp la concerné. donc euh, di ci sant yàlla di remercier aussi seen teewaay yéen ñëpp di leen wax aussi ne leen ren am na Miss Monde aussi. waaw da ngeen euh, Miss Monde le 16 décembre la à Porto Rico. Mhm. voilà donc di leen remercier di leen xaar rek ci villa ba di invité sénégalais yëpp ñu suivre ñu incha allah jam ñaajo samedi 19. Euh, ñu ngi leen di xaar merci ci invitation bi. <laughs> di di remercier monsieur Camara aussi. <laughs> voilà monsieur Camara ma bàyyi la nga daal di tàggatoo. kontaan ci cër bi bi war a tëjee. waaw macha allah se voit art de Seneweb donc remercier bu baax Seneweb qui à la fois est partenaire euh, officiel de du comité Miss Sénégal comme ni ma koy waxee. nous on essaie de s'entourer des des leaders. bon Naïma étant sénégalaise qui vit en au, en France on a préféré jëli wane doomu Sénégal li muy def ci bitim réew donc là c'est important pour nous et jeunes créatrices qui sont en train de faire bouger le monde. Mhm. donc euh, ci biir réew mi dañ leen a war a gën a xam gën leen a taxawal d'autant plus que euh, li tax ñu koy respecter euh, elle a mis à disposition tout ce dont on a besoin gratuitement pour donner même des cours de renforcement aux. aux gens qui sont locaux. donc vraiment ñu koy rafetlu ndax ñun loolu lañ ci wut. Mhm. au nit ñi pour ñu ñëw ci tapis rouge bi comme je disais. Euh, on a un public, c'est vrai, parce que ce pas encore la grande finale mmh. au Grand Théâtre qui sera pour le 13. Mais en tout cas, nous nous suivre nous qui euh, Sénéweb avec euh, les autres partenaires médiatiques, que ce soit sur le plan national que sur le plan international. Remercier euh, d'autant plus aussi les directeurs généraux de en tout cas des institutions yi nga xamante ne si ils ont compris maintenant et que ñu ngi ñuy accompagner euh, on fait un clin d'œil aussi au directeur général de, du Grand Théâtre mais aussi au ministère euh, du tourisme, du tourisme des transports aériens voilà, Donc, de la euh, euh, jeunesse les institutions boo limee juum bu limee danañ juum mais en <laughs> tout cas euh, wane nañ ne seen yëf la te ñun aussi ñoo ngi dellu di du Sénégal, c'est un, un produit qui n'est pas privé. C'est pour tous les Sénégalais. On fait la... Voilà, justement. Mm -hmm. Profitons aussi, euh, remercier et féliciter la Miss actuelle, Ndaï Fatma John, qui a une année vraiment très difficile parce qu'être Miss mm-hmm. durant Covid, c'est pas évident. Donc, euh, après, euh, justement, voilà. avant que nous couronne bi keneen euh, <laughs> incha donc euh, merci beaucoup euh, ci li ngeen répondre suñu invitation di remercier mbokku internautes yi ñu doon suivre di leen wax nekk samedi fële ca tapis rouge ba lu ma def interview nag rob ñoo toog taxaw ci bi <laughs> ci invité d'honneur yi ci lay bokk incha allah donc voilà merci de nous avoir suivis sur Seneweb TV à bientôt et merci aussi à nos techniciens